dali na jàmm ñu ànd xëy yéer yéen kaay ñu xëyandoo yéen tas na gouvernement bi fi nekkoon na sos na gouvernement bu yees yéen kaay gi réew mi quotidien mu ñuy xamal naan ñu njiitu mi di Macky Sall daan nay tàqalikoo ak Aminata Touré mi jiite woon conseil économique social environnemental njiitu réew mi tàqalikoo na ak Mohamed Boun Abdallah Dionne mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi premier ministre bu Sénégal Macky Sall tàqalikoo na ak Makhtar Cissé tàqalikoo na ak Aliou Ngouille Ndiaye mi ñu dénkoon wàllum intérieur tàqalikoo na ak Oumar Youm njiitu réew mi di président Macky Sall lu toll ci fanweer ak ñett ci ay ministre la teg ak lu toll si ñeent ci ay secrétaire d'État réew mi quotidien moo xëy di ñu xamal li xew ci réew mi ak waa parti réew mi dugg ci gouvernement bi yéen a kaay gii di Libération mu ñu xamal lan ñu Antoine Diome mi nga xam ne moo fi nekkoon agence judiciaire de l'État moo wuutu Aliou Ngouille Ndiaye ci ministère a kaay gi nee bi fi nekkoon numéro bu PDS dugg na ci gouvernement bi yéenekaay gi daan wax ne Aïssata Tall Sall osé na dugg ci gouvernement bi moo yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllum affaires étrangères moo fa wutu Amadou Ba yéenekaay gii di Vox Populi nee na njiitu réew mi di Macky Sall def na yëfu politique am ba bàyyi Macky Sall daan nay dëggal fësal bi nga xam ne ñenn ci askanu Sénégal ñoo ngi doon njortu ne Idrissa Seck ak Macky Sall dañu doon deal ak noppik Idrissa Seck gi yéenekaay gi de la sa ñu jàngee fa ne Macky Sall écrasé na toroxal na rey na ñi nga xam ne ay nitu démbam lañu woon ba diggante Idrissa Seck enquête yéen a kaay le témoin nee na Macky Sall jamono ji mën nañoo wax ne carte gi daf koo jaxase waaye nag daan nay àndu mboolem ñi nga xamante ni ñoo àndoon ak moom te am ay ambition présidentielle ku si mel ni Aminata Touré daat koy dàq Amadou Ba daan nañu koy dàq dafa amoon ay ambition Makhtar Cissé dàq nañu ko Aly ko Omar Youm dàq nañu ko Mohamed ko yéen a kaay na njiitu réew mi di Macky Sall sànni na ak mbaalam ci géej gi napp na Idrissa Seck ba pare tàqali ko ak cadre yi la àndaloon yéene kaay gi mu ñu xamal laan ñu am na ñaari ministre yoo xam ne ci parti réew mi la ñu bokk kenn ki di Yankhoba Diattara kenn ki di Ali Sale Diop Idrissa Seck ñu jox ko conseil économique social environnemental Aïssata Tall Sall ñu jox ko ministre des affaires étrangères critique yéene kaay nee na Idrissa Seck mi nga xam ne moo dem conseil économique social environnemental dugg ci gouvernement bi loole haute trahison la war gu rëy rëy yéene kaay gi di Walf nee na Idrissa ak Macky Sall jamono ji ñoom ñaar lungu nañu seen diggante neex na waaye ana kan moo si rogo jeer canceru moroomam ana kan moo si nar a rey moroomam Idrissa Seck dafay rey Macky Sall wala Macky Sall moo bëggee a doggali Idrissa Seck yéen a kaay gi di Sud Quotidien ci xalima ak Abdoulaye Thiam daat nay wax ne njiitu réew mi di Macky Sall ma ngi nag bale di defar yoon wi nga xam ne moo koy may ngir moo am beneenu mandat ci bopp réewum Sénégal yéen a kaay gi di réew mi xëy ñu jànge fa ne dugg bi Idrissa Seck dugg ci gouvernement bi tax na opposition bi yàq nañu ko musiba ak mbelengaana docteur Babacar Diop moom daat nañu koy consulter Idrissa moo ko consulter waaye nag dafa lànk kandaare man dafa am noo xam ne moom laay doxee Abdoul Mbaye daan nay wax ne bi nga xam ne moom la ñu doon wax diggante Macky Sall ak Idrissa Seck lépp leer na yéene kaay gii de la Tribune nee na Idrissa mi nga xamante ni tabbu nañ ko ngir mu jiite conseil économique social environnemental sénégalais yu bare bari am nañu si mbetteel te nag loolee coow lu rëy la jur coalition Idy 2019 bëri na ci ñoo xam ne ànduñu ak Idrissa Seck ci doxin wi nga xam ne moom la doxee yéene kaay gi nee na Jean Simon Ndiaye Macky Sall tàqalikoo na ak moom mu ànd bu yàgg la yéene kaay gii de Libération nee Idrissa mi nga xam ne moo fi waxoon 2019 ne bu faloo dafay dindi conseil économique social environnemental ndax amul benn njëriñ ci réew mi tey Idrissa Seck moom la jox kër googe yéen a kaay gii nee na Idrissa Seck kay li nga xam ne moom la wàcc woon daf koo daal di lekkaat journal bi nee na Idi est-ce que Macky bi nee fi ñu ko doon xaar maanaam du fii dañu ko doon xaar ci avion mu wàcc ci sareetu mbaam yéen a kaay gii nee na Abdou Karim Fofana xam ne ñu bari xaaruñu ko woon journal bi nee na ñu bari doon nañu xaar ab gouvernement boo xam ne danañu ko xóotal bëri ay coppate waaye nag loolee gisuñu ko sa yéen a kaay gii di direct news daan nay wax ne Ousmane Sonko mu neex ak mu naqari mën nañoo jàpp ne mooy chef de l'opposition yéen a kaay gii di lii quotidien nee na Idrissa Seck mi nga xam ne dem na ci Macky Sall jékkul jékk rek dem noonu dañu ko négocier xaalis bu weex tàll xaalis bu weex tàll ndax Idrissa Seck ci boppam moo demoon ba am ay jafe ci lu jëm ci wàllum xaalis ak ci banque yi jamono ji mën naa noyyiwaat yéen gii di les Les Échos xëy di laajte Omar lan la def Mohamed Boun Abdallah Dionne lan mooy ëllëgëm ci wàllum politique njiitu réew mi di Macky Sall confirmé na deal bi ñu doon wax digganteem ak Idrissa Seck journal bi nee na Macky Sall ubbil na Ousmane Sonko bunti palais ba ngir mu dugg fa enquête yéen a kaay réew mi quotidien Vox Populi daan nañu xëy di ñu tàggee professeur Iba Der Thiam nee nañu bibliothèque bu mag daan nay génn àdduna maanaam ab monument moo daanu journal bi di la témoin daal di xëy wax ne Iba Der Thiam intellectuel bu mag moo dem journal bi di ñu xamal xamal naa ñu marine nationale dafa jàpp benn gaal boo xam ne dafa defoon drogue ci waaxu Cap Skirring yi waaye nag ba ñu leen jàppee loxo ci poos ñoom trafiquant yooyu dañoo jekk-jekk taal gaal gi yéen kaay gii di sunu làmb nee na CNG ak équipe bu yees bi benn directeur général ab société mooy nekk ci bopp CNG journal bi di Rewmi Quotidien xëy na ci Edouard Mendy international sénégalais bii nga xam ne mooy toj jamono ji Premier League maanaam sa Chelsea stade yéen kaay nee na Edouard Mendy suul na Kepa mi nga xam ne moo nekkoon gardien bu Chelsea jamono ji sax mën nañoo wax ne concurrence amatul diggante Edouard Mendy ak keppa